rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 6 mai 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal sunu làmb leese ko Leewtoo TV Leewtoo point net ku nekk daal xëy nga ci weekend bi li nga xam ne ni amoon na fi ci ay làmb mu mel ni nag làmb yi jaxoon na moo xam bëree dóor ba la moo xam làmbi simple ji la ba ca jàkkaarloo ya waaye fan koy njëkke mooy ca Leewtoo TV jàkkaarloo ba nga xam ne amoon na démb rëg-rëg ak giride ñu ngay diggante sunu làmb ñëw na ci ci aw photo mu mel ni kii daal démb moom ñaari mbër yi moom seen daja ba mayu sa morom foo yekke ak nàkk lig nikolaay ma ko tëgg mu nga taxaw kii di rëg-rëg la mu xamal kii di giri de daal mooy li ma xam ba xam ko lay giri de jàppal monsieur sulaa duma daan la waaye maa la koy njëkk a def dinaa la duma ba nga nooy nepp ma daan la jëlli bu rëy te loolu moom amuloo ci mennum pexe giri de ne ko da ngay sóob yow mii la ma mës ta duma monsieur sulaa daan waaye jàppal maa lay attaqué koñe la gañe la duma la may fenn foo xam ne di nga fa yekke sa ak naag mu mel ni ki dimb daal ñey moom jaxal nañoo jaxa jaxa jaxa jax ba mbir ma yegg ci lool seenu combat nag mois de juin lañ koy bëree loolu mu nga ca leewtoo point net ak sunu làmb ba tey bu nu continuer rek dañuy ñëw ci li nga xam ne ni moom moo di ca leewtoo tv moom tamit mu mel ni ki daal jàppal lii nga xam ne moo doon keroog samedi Fallou Ndiaye ñëwoon Ondu la fu ak Ada Fass mu mel ni ki nag Ondu la fu moom dafa jàpp Ada Fass daal taxawloo ko wan ko ne ko daal man duma magum kenn wala boogit bu dee mag laa magum ko kororoj laa duma sa morom maanaam daal da koo duma duma yu metti ñu ne déet ne waay mu wër ko ndomb bés ko mu defeenu loola mu nga ca Leewtoo TV ba tey ci samedi ji la amoon bu ñu ñëwee tamit dem ca dimanche ji ci Leewtoo TV mu mel ni ki tamit Assane Ndiaye ñëw na moom tamit démb de ëllëg ñu gin bu yof ak kii nga xam ne moo di tonnerre numéro 2 mu mel ni ki nag tonnerre numéro 2 moom gin bu yof da koo gën a dugal ca saako ya ca Leewtoo point net moom daal boo bëggee dégg-dégg daal gën nañ koo dugal ca biir saako ba ba mu yegg ca coll ba ndax nag jël bañ ko daan mu nga fa ndax moom kii nga xam ne daal moo di tonnerre boo xoolee nag ñetti dafa tëngi yoo xam ne mu koy teglante waaye nen loo xam ne moom gis nañ ko fii nga xam ne mooy ca sunu làmb jàppal booy ñaa numéro deux digganteem ak lag de Guiers 2 yëglikaay bi ne na est-ce que booy ñaa mii dugaluñ ko ci fiir wala mbëpp parce que nag boo bëggee dégg-dégg promoteur ba yëglikaay bi ne na géejawaay la dëkk muy bàyyi njaay parrain ba géejawaay la dëkk di maire ba di Aline Sall que muy bëreel di adversaire ba géejawaay la dëkk di Lac de Guiers numéro mu mel ni ki nag tax sunu làmbay wax woote nee na est-ce que lii du ak fiir wala mbëpp gu ñu laalal booy ñang te bu ca duggee moom mbaa dina ko jig sunu làmb xëy wax lu mel noonu leneen loo xam ne tamit fekk nañ ko fii nga xam ne ni moom moo di ca Leewtoo point net kii nga xam ne ni moom moo di booy fay daal démb ca lit ba lit simple ba amoon adresse Senghor cinq cent mille yañ fa tegoon de moo ko jël waaye booy fay nag dafa dee ne waxuñu woon ko cinq cent mille un lañ ko waxoon mbir ma indi fa ab xuloo digganteem ak table technique ba waaye moom booy fay mooma rek soo al itam dafa finaalu ci ñu daan ko mu mel ni ki daal weekend bii moom loo ci mën a dégg mbir yi joxoon na lool ab combat ngi buñ taxawal sunu lamb dinu ko wax muy ay xale muy bàyyi njaga bu sàkku xam-xam ak booy jaxaaw loola ca Thiès lay amee boo xam ne tamit monte nañu ko waaye yeneen i combat ka ko def moo di Fallou Ndiaye doomu dàngu ak Farouz mu mel ni ki yooyu tamit bokk na ci yi nga xam ne ni daal monte nañu leen mu mel ni ki daal jàpp leen lamb ji moom jax lool la def leneen loo xam ne tamit ñu ngi ko fekk fii nga xam ne mooy les échos Ama Baldé ba tey mu ngay wax Ama daal rëg lay dànkaafu nee na ko sa wax jooju ngay wax de jàppal te ngaa def ndànk ci Gris 2 mën na laa tromper de Ama Baldé mooy dànkaafu rëg-rëg waaye xeeree ko garga mboosa sànni Ama na daal garga moom nekk nit koo xam ne day exemple la royukaay la nee na amul lenn loo xam ne ni de dinaa ko ko wax muy ay wax yoo xam ne yu déplacé wu la ba tey loolu mu nga ca fii nga xam ne moo di léese ko waaye ba tey jàpp leen ci lii nga xam ne nii moo di Leewtoo point net mbër ya nga xam ne nag CNG ba dafa nangoon seen ay licence fas déglu leen ba pare muy kii nga xam ne nii moom moo di Doudou Sané ak kii nga xam ne nii moom moo di Sélémélé ñoom ñaar nag mu mel ni kii nag ginnaaw bu ñu leen déglu ba pare day CNG ci semaine bii nu jëm wala boog ci talaata ji dinañu leen woo wax leen ñoom lañ leen doon toppee fan la wane di mujj ak ay bëtam mu mel ni ki nag làmb ji am na gardien waaye taala dégg naa fi suba wax du am man moom dinaa wax ba ne xaaw ndax nag woor du ma teree wax ndax su ma waxul Ismaïla loo ko waxoon kuy woor doo boo noppee da ngay rafle Talla Ndiaye man moom si kàttanu yàlla damay xel di wax incha allahu rabbi kon gars yi ñaanal leen ma baat bii ñëw may mën a wax mënumaa monter mënumaa bind mënumaa filmer nii photo wax laa man salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen wax na moon nañ leen torop ak weekend bi di nuyu sama mag sama xarit Babacar ànd ak moom ci revue bi comme ni ñu koy defee chaque jour Babacar nuyu naa la. delloo naa la nuyoo Aïssatou Faye madame Niang sama rak sama xarit di la wax ne ah weekend bi guddoon na macha allah neexoon na tamit. di nuyu internautes yi nga xam ne ñu ngi suivre rek fu ñu mën a nekk si àddina bi di leen ñaanal jàmm te ko sàkku ci ñoom bu baax a baax a baax. Babacar euh, dañuy dugg ci waxtaan bi ak li nga xam ne ni am na ci weekend bi muy face à face euh, bi doxoon diggante Reug Reug ak Gris mu nekkoon euh, ndaje boo xam ne ni ñaari mbër yi profité nañ ci ku nekk dig sa morom lu metti dig sa morom sa première défaite ci combat bi ñu jëm incha allah. waaw loolu day boo xoolee tey bëri na ci foo xam ne nii gis nañ leen fa moo xam Leewtoo TV la sunu làmb Leewtoo point net ak Lutte TV Dakar ak fu ne ñaari mbëri ñu nga fa loolu nag leen loolu muy wane mooy que ni combat bi ñu jëm moo toll noonu promoteur bi leen tëgg tamit di léegi Nicolas toll na noonu si làmba Gris 2 ak que ñaari mbër yu mësul daanu la combat bu am enjeu Gris 2 daanoogul Reug Reug daanoogul yaa ngi dégg te làmb daanu da cee bokk la gars yi di faral di wax parce que ay koy dëggal mooy que ni bu ñu bëree fa am ku daanu ah bu ñu diggante comme li li ñu gis Reug Reug ne ko balaa ma lay duma balaa ma lay daan dama lay duma waaw loolu wax comme li ma lay wax rek waxu mbër la mbër ak mbër moom matériel communication day bokk ci li ñuy def balaa ñoo dem si combat bi gii dée ne ko dama lay attaqué koñe la gañe la dégg nga moom tamit mu mel ni ki rek liñ naan lu lu lu kenn ki wax kenn ki suul yaa ngi dégg moo lay wane daal combat la boo xam ne combat bu méttee métti la mais combat xale la ay xale lañ nag mais seen dayo tey ci làmb euh, dépassé na sax niveau bi ñu toll man ci at parce que li tax mooy rëg dafa boot caaro yi yaa ngi dégg caaro yi nekk goxule bu tamit ay champion yàgg faa génn moom mu génn fa ah yàlla def dimbali ko mu def loo xam ne nii vraiment jafe na mbar def ko rawatina ci lit simple bi lit avec frappe tamit yàlla di ko dimbali ba daanoo gu ci yaa ngi dégg Gris 2 tamit boot écurie Fass mën nañ ne ak Medina nga xam ne fa la juddoo tey nekk rakku Gris do ñëw si làmb ñu naan ndax mën naa mënu te saa bu ñëwee def différence nit ñi ne ah kon kii nañ ko bàyyi xel ndax yaa ngi fàttali ko bi ko dul seeg na Fass ba yaa dégg te boo xoolee ba tey mbër yi muy bëreel bu bu bu leen daan jël dañ naan ñoo ko dàq ba loolu ñoo ko ëppee nangam te bu ñëwee mook ñoom du day wane différence de bu méttee métti moo lay wan ne daal ñaar ñi ku ci ne combat yi nga mujjee wala combat yi nga bëri buñ ci jàng buñ ci demee xool ko day mel ni yow ñu nga doon bëreel duñ say adversaire muy rëg-rëg muy Gris gis nga rëg-rëg daaw mook Elton parce que fa mu ko bëre bu rëy ba mu bëree moom ak fa mu génn moom daan ko Gris 2 pakala la mujje moo gagné par avertissement loolu dafa bokk si régalu làmb mais lig daal encore une fois di ko nuyu di nuyu raay ba di nuyu wili parce que tamit vraiment liggéey bi ñuy liggéey professionnel na et puis set na di leen ñaanal réussite ci loolu daal. Babacar dañuy des ci combat ba tey ak ki nga xam ne ni mooy Ama Baldé ñëw na ci les wax ci combat bi di artu laa ko mën a waxee ki nga xam ne ni mooy euh, Reug Reug di ko wax mu def ndànk ci combat bi ñu jëm parce que tamit Gris 2 mun na koo nax. waaw loolu moom euh, li ñu ci mën a wax mooy que ni Ama Baldé xëy na xalaatam la joxe nit ku ne nag bu ñu la laajee lii loo ci xam am nga droit ne lii laa ci xam comme moytu loolu ko Gris 2 mën na koo nax waaw loolu làmb la làmb lu ne na ne ah Gris 2 mën na nax Reug Reug daan ko Reug Reug it mën na nax Gris 2 daan ko yaa ngi dégg kon man suma leen di wax sax dama la naan ñoom ñaar ñëpp ku ci ne nanga jox sa moroom cër jox cër bi mooy li mu man ci làmb wala li mu foore ci bëre nga bañ nangu mu dugal la ci parce que ay satu boo bàyyi bu nit dugal la ci fooram balaa nga ciy génn mën na am moom làmb ja jeex nga ñibbi sa kër te bu keroogee moom <laughs> day doy waar kon daal ku ci ne moom la amaa wax man dama leen koy séddale ñoom ñaar ñëpp ku ci ne boo mayee lu toll ne tarfa dal ay ni sa morom mën na la nax daan la waaw ñu jóge foofu dem ci li nga xam ne amoon na samedi fële ci Iba Mar diggante ki nga xam ne mooy Onde le Fou ak euh, Ada ñu gis euh, ndam bu rëy bi fa Onde le Fou am ak euh, fi ko fi ko victoire bi jëlee parce que Onde nekkoon na mbër boo xam ne gëjoon na bëre nekkoon ci ay jafe ci victoire bu rëy Babacar. waaw parce que Onde le Fou euh, dama naan dafa am mérite làmb xam nga lu dama am mérite sax xam sa cosaan su ma jumul buñ ko xamee defe naa Onde le bokk na ci. waaw mooy tëdd fil bi après ñoom na ak ñoom naaru soog après la ñoom soq ñoom jët ñëw mu nekk mbër boo xam ne mën na bëre macha allah mais problème bi ñu ko doon gisal ci làmb mooy bindam maanaam tuutaayam. te am na tuutaay yoo xam des fois boo ko yoree mën na ci biir làmb ngay am yenn jafe-jafe ci yenn adversaires yi mu teglante woon ay défaite am ay année balance ñëwul su ma jumul bu ngu ñaan la mujjee bëreel am ci ay waaw këjun ci làmb ñu xale boo xam ne mu ngi nekkoon ci yoon di dem muy Ada Fass ne ci ndam yu leer nañ di wane boppam nekk xale bu tuuti ah, ñu bari nag joxoon nañ favori bi Ada Fass waaye nag làmb du biir de xëy wasin boo xoolee ci biir bëre bi Ada Fass supporter moo ko ëppale fecc na lu neex def na lépp li mu war a def waaye ci biir bëri bi nag takkaay yu bëri yi boo xool des fois mu désavantage la boo xoolee. ondu takkuwul moom takkuwul dara boo xoolee presque. ngembam la defar def ca lam a def taxaw boo xoolee bi ñu lewaatooyee ñu jàppante mu bipp ondu ondu wuyusi ko ci la ko te yenn dóor yi perte mm, connaissance. amul dafa kawote effectivement parce que boo gisee ni mu wàcc xam nga ne li ko dimbali sax mooy xëy entraînement bu baax mais kon da doon toogi foofu nag ci foofu nag ci la ko ond profité wër ko ndombo mu bëgg a génn ond bës ko muy jël boo xam ne daal bu leer naññ la di félicité ond la fu di wax ne olof a koy wax ay satu feeg yoon jeexul rek waaxu si lu jeex Ada Fass itam di ko wax ne xale la lii na na ko jël leçon maanaam gis nga lii nii dafa maanaam defet la metti na trop ci moom mais it mën na koo jural lu bare bari ci kanam li des ci carrière parce que da na lu ko war a jàngal waaw waaw beneen combat boo xam ne tamit am na Iba Mar Diop dimanche la muy diggante gin bu yoof ak ki nga xam ne ni mooy Tonnerre 2 Tonnerre 2 tamit euh, amaat ci beneen défaite euh, kii di gin moom daal di ci génnee écurie yoof mu parce que yoof ren li ñu ko dégg bëriwul noonu trop parce que lider yu bëri amuñu amaguñu combat ku ci mel ni Modja bëreegul day euh, xaar koor gi jeex Malick ñaa amul combat dumbul dem na kon gin tey jii ndam li mu andi nii dafay delloosiwaat écurie yoof làmb parce que bi nga xam ne bi ñu départ itam gis nañ fa champion génn fa Malick ñaa dem rejoindre leen ñu fekk fa dumbul fekk fa muut ak yeneen xale ñoom Ablaye Diop ñu nga fa gin tamit bu ñëwee tey def li mu def démb ak tonnerre daan ko moo lay won ne kon comme li nga wax rek indiwaat na écurie Yoff ci biir course bi euh, bëre bi nag li ma si mën a wax mooy ci biir bëre bi tonnerre boo xoolee moo gën a gàtt gin moo ko sut boo xoolee bi mu koy jëli dafa sax def genre yooyu parce que dafa dem rek jëli yaa ngi dégg loolu jëli nit ki soo njool bu ndaama buy songu njool pour man da koy day def combat rapproché jege ko bu déclenché xeex mu wàcc juyeloo ak moom bu koy jàpp jàpp ko fu baax mais mënoo am njool nekk fële yow ngay nekk fii tëb ne da nga koy jëli bi mu ñëwee mu dogale ko sol ko aj ko yaa ngi dégg bi ñu ndangee ñante foofu nag moom du am avantage parce que loxoom du mën a jàppi yaa ngi dégg gin mooy avantage wu ci biir loolu itam mu dug mu dugaat beneen bëre boo xam ne ñorul parce mu ngi bëgg a jël waaj bëgg ko tël tuur ko yaa ngi dégg te waajee ko sut waaj yi ëmb ko jañax ko li mu doon def avorté mu daanu kon loolu moo lay wane tamit il foog ñoom bu ñuy mbër mu ne am na nu ñu war a bëre ak moom mais du n'importe quel maanaam nu la neex rek kon di féliciter Guine di encourager Tonnerre di ko wax ne tamit na xoolaat affaire am parce que boo xoolee mu ngi si ñetti defet yu tegloo yaa ngi dégg làmb nag Euh, comme ni ñuy wax rek daanu da cee bokk mais nag xale la moom Tonnerre yàggagul ci làmb fu nga xam ne nii dañ naan làmbam yàqu na wala nangam na defaruwaat gin tamit fi mu li mu def démb ah maanaam méritam la waaw noonu la fa demee di nuyu waa écurie Yoff yëpp daal waaw. waaw Babacar diñu jógee foofu dañuy dem ci ki nga xam ne ni mooy booy Niang Pikine fekki fa suñu lamb moo ñëw tey def benn jàngat ci combat war a dox digganteem ak Lac de Guiers ñuy xamal ndax tey ji du benn genre piège bu ñu tendre ki nga xam ne ni mooy doomu dogal bi parce que promoteur ba géejawaay parrain ba géejawaay ñëpp géejawaay est-ce que tey loolu du nekk loo xam ne ni luñ ko waajal la pour combat bi mu jëm. Boy Niang de dama naan du dof ñu ko wari duñu ay dof. yaakaar naa buñ ne dégul mooy sa papa Bourkhane Wade di sa menacé ah nga dëkk Pikine yaakaar naa moom la la na ko si ta doon waxee rek dangay ngay def jar yaa ngi dégg li tax ma wax loolu mooy moom moo jël combat ak Lac de Guiers bëggoon a bëre ak moom ay promoteur bëggoon ko ba ci fii nu nekk di Pape Thialis Faye yàlla dogalu ko ci ay loxoom yàlla dogal ko ci loxooy bàyyi Ndiaye Bourkhane Wade jël ko kon man Babacar gis-gis boobu du ma ko amee xam nga ban gis-gis laay amee Baye Ndiaye promoteur bu yor licence di tëgg làmb pare pour tëgg mbër yëpp yàlla dogal mu am combat booy Niang ak Lac de war koo tëgg alin Sall la dëkkal nag parem la di meeru Guédiawaye moom moo xam ne tax mu delloo ko njukkal tudde ko làmb man gisuma pièce dama gis ne rek promoteur bu yore xaalisam la gis mbër yu mu mën a tëgg juboo ak ñoom tëgg leen ñu war ko bëreel Boy Niang yaakaar naa ne euh, loolu man pour man newul si boppam sax parce que li tax mooy kani moom mooy mbër mi mooy bëre ji xam na combat bi mu jël xam na promoteur bi ko tëgg xam na parrain bi te tey lu ñu mën a wax rek mooy que ni làmb moom mënu am na yoo xam ne ni daal pour man sax jurul waaw ko sóoree da lay sonal quoi parce que amul ay sori pour man amul sens quoi kii fi la dëkk kii fi la dëkk ñun ñëpp ñoo bokk ah. yaa ngi dégg ñun ñëpp ñoo bokk réew mi léegi ni ko laay tëgg na fi Bombardier pourtant ñoo bokk mbur est ce que da nga naan tey bu Luc Nicolaï tëgalee Bombardier combat man ma dëkk Dakar du ma ko bëreel yaa ngi kon daaw est que Pape Thialis doon na tëggi Bombardier ak Modou Lô ak Eumeu Sène fu mu dëkk Dakar région de Dakar Bombardier nekk mbuur

que le meilleur gagne di nuyu encore fois sama xarit Baye Ndiaye mi tëgg combat bi waaw. waaw euh, que le meilleur gagne ci loolu la ñuy jeexalee dem si li nga xam ne ni mooy lutte simple bi ak Boy Faye bi nga xam ne ni weekend bi mun nañ ne wane na si boppam parce que sam euh, finalu na fële nga xam ne ni mooy euh, ca Joal daal di jël Adrien Senghor dimanche bii nii 500000 liñ fa mise woon waaye tam coow lu ñàkkul woon foofu dimanche parce que mise bi waxuñ ma woon lii lii la woon amoo am fële ca Adrien arène Adrien Senghor. Boy Faye moom bu jàppal sax bu la premier mai la ko commencé li njëkk finalu ak Franc Franc daan ko. dem samedi finalu waat Joal ñu daan ko dem mu ñëw adressé ngor finalu jël ko waaye coolam mooy un million lañ waxoon nag waxu cinq cent mille lañ teg loolu nag moo pour man pour man warul bëri coowaa ah, parce que ki ko tëgg nga fa ñu waa CNC nga fa coow waru fa am cinq cent mille lañ teg nit ñi mewul ne un million la teg ba pare ñëw ne cinq cent mille di ko féliciter ci li mu gagné moom booy fay champion la na gën jox bëreem daal fu la ñun loolu koy dolli. Babacar la ñuy tàggatoo mbokk yi nga xam ne ni ñooy suivre Leewtoo TV di ñu jaajëfal saa su di ñu yokk doole di gërëm Mame Talla ci caméra bi ak Ousmane ci montage bi équipe Leewtoo TV yëpp ñoom yàgg ñoom Biram ñoom Ndey Kumba di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di leen ñaanal koor jàmm ak salaam parce que Babacar euh, suba la ñuy um koor ak. incha allah di ñaan yàlla kooru jàmm ak kattan guñ ko wooree incha allah parce que xam naa ni moom baati dina xaw a commencé suufee incha allah ñu ñaan yàlla rek yàlla may ñu kattan buñ ko wooree ba incha allah un mois yëpp. Ah, <laughs> man moom si kattan suñu borom li ma leen wax sànq rek wax moom mënut a bañ a am parce que xam nga lu tax ah du sotti su ma waxul kon dinaa wax di wax rek daal ni nga ko waxee noonu koor gi yàlla na ci dugg bisimilah rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilah rabil alamin lépp luñ ci jaamu yàlla suñu borom bi na ko nangu moom mi nga xam ne moom mooy nangu jaamu doomu aadama la weeru barkeel la weeru ngëneel la mais aussitôt di ci profité ay sotu di balu ñëpp àq képp koo xam ne rek mas nañoo wax sa micro bi loola déranger ñu lay balu àq di ñaan yàlla nga jéggal ñu xam ne que nit moo matul mais bu ñu fi waxee lu baax tamit jàpp leen suñu borom moo ñu dimbali rek di ñaan réew mi Sénégal yàlla na fi yàlla saxal jàmm barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam mais dafa am ñoo xam ne nag du leen bañ a nuyu sama soppe moom ne muy mooy ngénte caaya ji buñ korité ba pare samedi ba ca njëkk yàlla nañu ko fekk de ko muy tuuti yaay saar kon tuuti yaay saar yaay ngénte caaya ji jox naa la ko loolu sa yow la yaa ngi dégg bàyyi naa loolu mais waa Maroc Aïssatou dañuy bëggee yaa ngi dégg ku mel ni Fallou Niang depuis Maroc kon revue bi tey yow yaa ko moom yaa ko waa Maroc yëpp sénégalais yi nekk foofu ñu ngi leen di nuyu Dubaay tamit di leen nuyu ah Gambien yi nekk Dubaay ak sénégalais yi nekk Dubaay ak fu doomu aadama nekk si àddina bi rek waaye ki nga xam ne ni nag mooy Arafat xam nga Arafat Arafat Babacar doomu ndeyu rek rek moo ma jox mayo bi démb ziif bi borom lutte simple voilà ne ma siiwa génn bareegul si dëkk bi sol ko nga defe ji ko revue tey kon Arafat maa ngi lay nuyu di nuyu waa marché Colobane yëpp rawatina ma am sama doomu nday borom happy ah ma am happy jaaykatu dal àll foofu ci Colobane ak sama rakk di àll joom ñu bokk benn papa muy jaay ko téléphone nekk Colobane di nuyu waa marché Colobane yëpp di ñaanal ñëpp jàmm Aysatu Fay xol bu sedd yaram mu sedd Taala Njaay Ousmane yàgg yàlla na ko yàlla defal ñëpp barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàmm ci réew mi waaye jàmm ci àddina bi sëñ Bamba noonu na moo gën àddina bii nu ne moom jàmm waaye ëllëg yowmal xiyaam yàlla na yéex bu fa demee itam jàmm fa gën kon yàlla nañu yàlla defal jàmm euh, amin la ñuy wax te jox rendez-vous